jërëjëf mbokk internet yi buur a ngi leen di nuyu di leen ziar ak di leen ndokkeel ak fooy mën a ne di leen jox seen cër ak seen waay wàccuwaay dellusiwaat ak yéen ci beneen jotaay xam-xam ki ma fii dara xam ngeen ko sëñ Fallou Dramé di sët sëñ Moussa borom daaru Pakchar góor yàlla moom nag ku ne xam na ni waa Pastef la xam waa Sonko booy <laughs> léeg-léeg waxtaan bi a ñàngante tey nag moom laay xam sëriñ bi tey tey nag léegi naka lay doxee danañu waxtaanee actualité démb la premier ministre Ousmane Sonko def na sorti euh, wax ci plusieurs formes wax na ba tudd du ñu baale du ñu nàngam ku yoon war a topp ñu fi nekkoon di fen rapport IGE euh, ministre de la yoon yónnee na mu benn vidéo ci benn waaye nangam nangam wax ji bari na trop tey nag danañ ko jàngat waaye dinañ waxtaanee xam-xam sëriñ bi buur a ngi lay nuyu bàyyi la ngi néew ñu lay saan ci biir Bprod Media ak Bour Ngueweul bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi ajmain fa radiallahu taala anil habdil xadimi ridan yasmalul ala wa sawil mahabba asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëñ buur maa ngi lay delloo ab nuyu di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi chiffre ak fuñ mën di nekk ci mm-hmm. biir réew mi ak ci bitim réew di ñaan yàlla mu def jàmm ak dal ci biir réew mi waaye tam def ko ci biti réew mm-hmm. koy jaaxle yi ak lu mën di sabab seen jaaxle <coughs> yàlla yàlla saafara leen ko incha allah bismillah sëriñ bi dee mu déglu nga Ousmane Sonko defe naa ba mu jeex mm-hmm. li mu jot a wax yow noo ko gisee ànd nga ci wala àndoo ci wala dafa am ci moom point yoo xam ne ànd nga wala point yoo xam dem sax ba ñiy jàpp sama digg sama taqalikoo ak Bassirou jomaay ñi mhm. ko yàkkamti mhm. nañu noppalu te xam ne mhm. loolu amagul waaye daal liñ jot jàpp mooy man dama gis posture Ousmane Sonko ba tey comme un opposant te alors qu'il est le chef du gouvernement jàppoon ni sëñ bi urgence bi feneen la nekk mooy dund gi solution yi lan la ñu def ak lu ñu war a kii que bu waa que discours yi mu tëni dem waaw déglu naa ko de xam naa ne d'une am na yenn certains points yoo xam ne mhm. dinañ ci xaw a am désaccord li mhm. ki nga xamee ne am na ci point yoo xam ne amul lu dul mën koo rafetlu amul luñ ci sikk boog wala boog amul luñ ci mhm. parce que li am solo mooy eh, politique fii ci Sénégal dafa am nu muy doxee te itam <clears throat> léeg-léeg nit ki bien sûr xam nga Sénégal li may wax léegi nit ki bu noppee ñu ne waa moom lu ko tee wax boo xëy ñu ne dafa bëri wax hmm. finalement yow da nga dul xam ban position ngay taxawee hmm. moo tax dama daan toujours nit ki rek nay jël eh, responsabilité am ci hmm. lépp lépp engagement wala propos yoo xam ne mu ngi koy def rawatina bu fekkee da nga jiite aw mbooloo jiite parti politique ku mel ni Ousmane Sonko donc discours bi démb xaw na un xaw na jegeek lu baree bari mm. eh, discours président yi mu daan def bi mu nekkoo ci ci ci ci ci opposition bi mm-hmm. xaw nañu am niroo bu baax a baax ci wet yu baree bari bu fekkee yaa ngi koy analyser ak yaa ngi koy xool mm-hmm. waaye nag discours bi buur dafa am lu ci gën a fees li ci gën a fees lépp boo ko seetloo mooy tontu mm. ay attaque personnelle wala boog mm-hmm. ay critique tontu ay commentaire rek quoi commentaire waaw loolu moom gis naa ne fees na ci discours bi bu baax a baax a baax eh, te itam xam nga comme moom euh, fu mel nee rek la mën a tontoo parce que mbubu bi mu sol moo tax mbidu mbubu nuñ ko tuddee premier ministre mais que heure bi heure tontu la sëriñ bi hmm, xaaral baa ngi ñëw <coughs> xam nga politicien te Ousmane Sonko it nag euh, am na aslëf lu mu xam ci politique hmm. am na lu ko ci yàlla may doo laa koy mën a tuddee hmm. Eh, loolu yàlla moo koy def yàlla mooy xamal nit ki mm-hmm. yàlla mooy defal nit ki sases mm-hmm. ci bu waree xalaat wala mu war a tëral mm-hmm. eh, yàlla day def loola bu tëralee mu jub bu waxee mu mu yenu maanaa loolu yàlla moo koy defal nit te xam na ne comme moom mu ngi jiitee ab parti politique te parti boobu bëgg na ay tànkam sore ba boolee bu ko dee teg ci ay loxo itam parti bi nekk parti boo xam ne buy buy buy buy buy buy buy avancé la bu baax a baax te junj na ko def defe naa ne ci biir kii bi def na ne nee naa ne nee xale yi fii ak vingt cinq ans ci kanam. Mhm. man dootu ma nekk président dootuma nekk lii dootuma nekk lii yéen yéenay nekk mm, président yéenay nekk premier ministre. donc mhm. loolu joxañ la bu am am solo euh, ci ci wàllu waaye li ci am solo rek mooy man dama gis ne <clears throat> ci côté boo ko seetee buur mhm. euh, nekk gi mu nekk premier ministre. mën na ko empêché ci lu baree baree bari loo xam ne ci jotaay yu bari du ko mën a wax mhm. ci position yu baree bari du mën a jël ay position waaye la fait que démb bu ma simbi mbubb boobu sol nag mbubbum chef de parti chef du parti mhm. donc kooku nag dafay yor beneen discours boo xam ne dina wuuteeg lu baree bari dafay moo tax discours bi xaw a niroog discours opposition mhm. ndax loolu itam bul fàtte nag ne xam nga ba fii may wax yow deesu wax ne opposant amul amul fi hmm. am na fi waaye opposant bi seen xeetu opposé wu dafa am ni ñu koy defee ni ñu koy hmm. defee mooy boo seetloo da ngay gis ne dañuy gën a làqu bu baax a baax ci côté ci côté presse bi hmm. dafa mel ni ñoom li ñu bëgg a wax wala bëgg koo def dañ koy jox presse bi daal di toog ci seen ginnaaw donc loolu boo ko dee def nag nit ki bu fekkee na xëy na jàpp nga ne position bee mu taxaw moo tax sañ nga ko cokkaas sañ nga ko wax lu nekk du sañ tontu ndax mbub mu mu sol moom itam dina la wan nag bis mën naa ñëw ma simmi mbub mi dem sol mbub mais ngir mën la tontu ma pare delluwaat ci sama ci sama sées mm-hmm. donc loolu la doxee démb li ci mat a bàyyi xel rek loo xam ne xëy na defe naa ne joru ko woon mooy yenn yenn yenn position yi mm-hmm. lu mel ni que maanaam xëy na am na ku ko woo bu dul ministre de la justice xëy na di di procureur xaw ma daal. xam mhm. na daal kooku ci woon ko xale bi def naa. kam la waaw mooy seen militant bi. mu ne ko dafa dañ ma envoyé benn vidéo. donc voilà mu ne ko loo ci xam. mu ne ko loo ci xam gis nga gis nga loolu lu danger la quand même. parce que mhm. loolu euh, gisumoon na lu mu waroon a indi ci penc mi la. Mhm. xam nga lu tax dafay. indi ay dafay installé ay doute yu bare bari ci bopp voilà ndax li tax mooy sax la indi de nit ñi dañu dem ba am confiance que ne soppeeku Mm-hmm. am na wala mu ngi ci yoon yu am mm-hmm. kon bu fekkee ne même méthode wala yoon bi ñu doon xeex moom la souligné démb ci discours bi wane que ne lu mel noonu am na parce que le mun a envoyé nañ ko kii bi na ko loo ci xalaat dafay mel ni kon ki ko envoyé da ciy déglu moom lay déglu ndigalam kon dafa da nga déggee mooy konoon bu noonu ko bu bul def du def loolu kon dafay dafay wax wax gi su ko nee defal mu def waaw mais gis nga loolu dama gis na jaruloon wax ndax du kàddu yëpp la ñu indi ci ci penc yi mm-hmm. wala boog du moment yëpp lañ koy indi ci penc dafa am lu ñuy jàngale ci balaaxa balaaxa euh, benn matière la boo xam ne li muy jàngale mooy rafetu nu wax wax bu jub daal noo ko mën a waxee ak boo déggee wax nag naka nga koy jàngatee. Hmm. balaaxa nag dafa am ñetti bunt yu ko composé ci biir balaaxa am na lu ñu tuddee bayaan am na lu ñu tuddee bayaan am na lu ñu tuddee albadi yi. Hmm. bu dee bayaan bi ci xeetu istixaaraat lay dem maanaam hmm. boo noon tey. dugg naa ci jàkk ji fekk fa géej goo xam ne li muy maye ku ne xam ne ne géej mënul dugg ci jàkk mhm. mais da nga bëgg wax ne dugg naa ci jàkk ji fekk fa benn waay boo xam ne dafa tabe ba mel ni géej di maye rek mhm. wala nga ne daje naa fii benn gaynde waaye de gaynde gi bi mu yu mel noonu wala nga ne xal liyun dafa mel ni gaynde mhm. da nga jël njàmbaaru xal liyun niréele ko njàmbaaru gaynde yu mel noonu loolu mooy ba bu dee bayaan nag moom wax bi ci boppam boo ko déggee ak wax bi ngay joxe comme information naka man bu mu nga mën a solal wax bi eh, ci xelu nit ki ngay jëkk jàngat ba xam yow ban niveau la am ci bi nga koy jox information bi mhm. ndax gëm na la cent pour cent wala wax bi dafay laaj nga def li ñu tuddee taw kiit mooy mhm. feddali gu dëgër bu laajee gëñ sax nga gëñ ngir nit ki dégg mën a jàpp wax bi boo ko tag nag li nga xam ne mooy badix yi nga xam ne moom jëmmi rafetunu baat yi rek mm, ci ci lay ci lay ci verbe yi ngay yi ngay jëfandikoo mhm. seenu rafet ak seenu neexatul ak yu mel léegi nag loolu dañuy wax ne li kulli ma xaamin ma xaal mooy wax bu nekk dafa am palaasam moo tax wax boobu mu génnee démb gisumoon na foofu palaasam la même moment bi mu ko defee gisumoon na du moment boo xam ne warees na ci génne parce que nit ñi dañu jàpp ci seen bopp yi ne il faut rupture dina am changement dina am radical kon bu fekkee ne koo xam ne ministre de la justice la wala procureur la wala ku mën di doon ci koo xam ne dañu teg ci moom ci ay loxoom ci wàllu àtte doxal yoon mu bokk ci ñi nga xam ne dañu leen sélectionné jàpp na kii ci ñu wóor la bokk ñi nga xam ne lu ñu li ñuy doxal duñ ci xool lu ne nox la séparation des pouvoirs donc voilà duñ ci xool lu neex Sonko wala wala wala Diomaye mm. duñ ci xool loolu kon le fait que mu di ko consulter ci affaire boobu kon nit ñi mënoo génne ci seen bopp ne seetatuñ lu neex kooka mm. donc moo tax wax boobu ak yu ko niiru yu baree bari defe naa ne yooyu matuloon matuloo na wala ay hmm. ñun duñu baale comme si c'était que yow yaay yoon yaa war a toppe yaa war a jàppe donc foofu foofu sax foofu sax d'une part am na ci lool mën nga koo nangu ndax dana man personnel na personnellement hmm. baale naa yéen itam maa ngi leen di ñaan ku mën a baale nga baale loolu moom hmm. lu baax la mais ce que yoon tamit mu xam noonu maa ngi ñëw xam nga dafa am ñaari yoo xam ne xam nga da nit ku nekk dafa am loo moom am loo boo xam ne moom moo ko waaye da nga caa bokk fu mu ne yow mii sa moomeel dafa am fu mu yem loo xam ne lii yow dong nga ko moom bokkoo ko kenn mm-hmm. waaye dafa ci am loo xam ne nag du sa moomeel da nga ko bokk ak askan wi da ko bokk ak famille bi da ko bokk ak pénc mi danga nga ko bokk bopp bokk ak réew mi ak population bi mm-hmm. yooyu nit dafa ko war a distinguer le fait que nag yi nga xam ne moom ci jëmmi boppam la dal wala lu ko nit def nga xam ne loolu moom la engagé mm-hmm. loolu sañ na jéggale te alxuraan sax loolu lay wax da leen toolee na ngeen fayu kemtulaay lañ leen tooñ mhm. waaye bu ngeen mën mënee jéggale foofu wa xayrun lakum maanaam jéggale gi mooy li gën moom bi mu ne non seulement jéggale naa waaye maa ngi leen ñaan ku mën a jéggale nga jéggale waaye nag am na leesu loo xam ne doo su ko jéggale mooy li nga xam ne mbiru mbooloo mi la mhm. mooy nit ku ñu jàpp ci manifestation te ñu jàpp ne loolu lu yoon maye la ku am lu la naqari mën nga koo exprimer mhm. eh, génn dox def dox ñaxtu kuñ ca jàpp yóbbu la ci commissariat yi di la torturer mais xam nga lan laa d'accord manifestation yi dañu yàqal ay gor mm-hmm. toj ay magasin mm-hmm. toj ay BRT mm-hmm. ay nit ñàkk ci seen bakkan taal ay Auchan ay nangam nangam nangam nangam bu fekkee baat bi dañ ko gàttal ci baatu ki doon manifester parce que ki doon manifester moo def loole loolu mooy dëgg waa xam nga la problème du loolu le problème mooy xam nga manifestation moom bu amee mm. dafay am ku doon manifester wu lu koo xam ne manifester moo ko taxoon a jóg mm. ak koo xam ne da caa potoxlu mooy da ciy dugg si waaye manifester taxu koon a jóg donc ñaar yooyu dafa dafa dafa mat a ràññee léegi nag la fait que nga jàpp koo xam ne kii moom manifester rek moo ko taxoon a jóg nga yóbbu ko di ko tax torturer kooku dañu gis ne yaa ngi te torturer moo ci warul am yoon donc loolu tamit loo àndul ak moom loolu mën nga ko nangul mooy torturer koo xam ne day laaj ay axam ak fam loolu jaaduwul te am na loo xam ne waxuma la jëflanteeg nit sax waaye jëflanteeg nit ak bàyyi ma sax waru caa waru caa yegg loolu la ñu tuddee alwahusiya te ngeen di ko tuddee animosité parce que loolu loolu jaaduwul dafay indi li xewoon rek dafa dem ba diggante nit ñi ak wàllu justice diggante nit ñi ak sunu force force de de l'ordre yi. Mm-hmm. am benn rancune benn haine bu dugg seen diggante loolu mën naa mm-hmm. ñàkk ndax ñoom ñëpp bokk ndey ak baay bokk réew mi te mënuñu koo séddoo. Mm-hmm. donc le fait que dañu war a fexe ba lenn lu ci nekk rek ñu teg ko ci teg ci yoon. donc kon ñi nga xam dañu jël alalu askan wi ñi nga xam ne dañu def na ko su doon ñi nga xam ne dañu fekk koy manifester wu ñu duur ko balu fetal mu faatu. yooyu lam ca wax loolu la ca sañ wax mooy loolu moom du lu ñu du lu ñu baale lu ñu topp la loolu tamit. bu fekkee ne ñoom li ñuy def dañ ko rendre au nom du peuple mm. bu ñu gisee ne peuple ba dañu soxla loolu lépp ñu delloo si ko teg ko ci taabal bi jàngataat ko mm. xool kenn ku ci nekk la nga ci laale ak la nga ci jëf ñi teg xool sanction bu tolloog loolu ñu teg la ko quand même loolu loolu defe naa loolu mooy li war a am ndax euh, mooy li ma la waxoon ci émission bi passé maanaam ki def naka sul du noonu ñi di ko sanctionné moo xam dafa sàcc ñi dagg loxoom ci misaal ci lislaam mm. wala ki njaalo ñu te amul soxna ñu dóor ko téeméeri yar bu amee soxna ñu jàmm ko ba mu faat loolu non seulement yemul ci kii euh, solo si du du du sanctionné kii def ko rek mais da koy def pour. pour joxe exemple. maanaam ku ku ko bëggoon a def nga bañ ko def donc loolu mooy solo si maanaam bu ñu bàyyi yu bari mu jàll day may fitu boo liggéey bu nit bëgg defaat naka su dundoon mu mën ko def te yooyu. nag daanaka buñ ci yeggee daanaka nit ñi dañuy jéem di fajal seen bopp te loolu buñ ci yeggee musiba lay doon ndax lu bari bari bari ci ay guerre yuy am loolu moom moo ko indi mu ngi noonu di suñu point actualité ah. Mm-hmm. man moom sëriñ bi tey waxtaan nañ mais tey sëriñ bi convaincre ma quoi ah. loolu moom <laughs> sama droit la. léegi yow yow <laughs> yow ci yan point nga jàpp ne yow amoo ci. Euh, waaw xam man li ma mm. jàpp mooy. dafa am ay événements yu fi amoon. waaw Macky Sall bi ñu bëggee teniir ay élections. Mm-hmm. dafa amnistie. waaw mooy jéggal nañu. képp ku defoon ak ci camp boo mun bokk. ñëpp ñu bàyyi ñu dem waaw ci léegi moom ci lan la sukkandiku ba def ko non moom jàmm rek la doon woote ci dialogue parce que boobu xam naa na jàmm voilà parce que boobu mhm. mu liw gaa naan Ousmane Sonko ne pouvait léegi xam nga xam nga négocier avec une arme au Trump problème bi du loolu xam nga problème bi mooy sëriñ bi daal mbir mi daal ko ay daal problème bi mooy gis nga gis nga gis nga woote jàmm jooju ak fexe ba jàmm am jooju am na fu ñu ko gënoon a soxlaa. waaw te amul foon te amul foon donc yooyu yëpp itam nit ñi dañ ko war di bàyyi donc daal mbir mi daal dinañ ko waxtaanee mag sëriñ bi dinañ ñëwaat <laughs> sëriñ bi te damay waxtaanee point bu am solo li ñu mhm. soxla ko mhm. muy nit ak wërsëg mhm. wala nit ak xaalis walla nit ak am-am wala nit ki ci yan la mën a jaar ak sëriñ fàllu Dramé ci wàllu ñaan yàlla wërsëg ak xaalis de bokkul waaw xaalis bokkul ah non non bokkul ah ma defee ni ku am xaalis rek am nga wërsëg. non risque mooy wërsëg. al maalu mooy xaalis. gis nga baat di sax bokkul. ñu naan lu leen damay gis nit ki bu nit ki amee xaalis la ñaan ak ak a bëri wërsëg. xaalis mooy ay bee yu ñu créé wala ay pees yu ñu kere wala wurus wala moomeel wala. naan mën di doon loolu moo tudd xaalis. ngir nit ñi ay wecceeku yi am seen diggante. Mm-hmm. ñu am moyen bu ñu mën a sukkandiku pour def ko. xam nga bu fekkee da ngaa bëgg kër lan laa mën a jox waa ba mu jox ma kër gi donc loo tax loo tax ñu indi ñi créer xaalis loolu rek mooy soxla su créer xaalis ah, du du leneen. pour échange bi yomb. waaw ndax bu jëkkoon a jëkk ca siècle yu mhm. nit ñi bu ñu daan essence boo ñëwee ci waa ji nga soxla gileem wala nga soxla ci moom dugub par exemple danga nga koy jox ay xar mu jox la dugub. waaw ngeen échange. donc ngeen échange. donc mhm. bu ñu demee ba gis na léegi loolu xadaa la kii nu mu tudd ak mando amul ci woon hmm. ndax léegi-léegi nit ki li muy soxla di nga ko jox lu ko ëpp pour jot ci li mu li mu kii hmm. ci lañu ñu créé ne nag ngir hmm. essence bi yomb kon xaalis mooy loolu benn juntukaay la boo xam ne benn ndaw la boo xam ne danga koy yónni mu fajal la sa soxla waaye nag moom dina ko faj waaye du dellu si waaw mooy sël ndaw boo xam ne boo ko yónnee foo nga koy yawal bu demee li nga koy doxloo dina ko faj ba sa xol sedd waaye moom du dellu si ci yow <laughs> loolu la léegi nag wërsëg dafa gën a yaatu mais wërsëg ak xaalis bu ci gën. wërsëg gën junne yoon bokkul sax wërsëg dafa gën junne yoon xaalis. ak risque. Mm-hmm. Mm-hmm. moo tax yàlla tuddee boppam amul fenn fu turu yàlla woo xam ne xaalis lay tekki amul mais turu yàlla wuy tekki wërsëg am na. a mm-hmm. arasaaku mooy yàlla miy wërsëg arzaq. waaye waaye almawaalu wala annawaalu yooyu. dégg nga <coughs> amul dégg nga kon loolu li muy tegtal rek mooy wërsëg ndekk moo gën a moo gën a moo gën a yaatu mhm. même koom sax moo gën a yaatu moo gën a yaatu xaalis xaalis li ko gën a yaatu bari na mhm. moo tax boo ñaan bul ñaal xaalis kese da ngay ñaan ubbeeku ci wërsëg mhm. ubbeeku ci wërsëg lan mooy solo si mooy tey loo jóg di ko wuti loolu day dox dajeek yow nu ma ko mën a misaale day nekk tawfeex ci yow tawfeex tawfeex ni ni ma ko maanaam loo yóotu jox voilà sama sama waajur sëñ Moustapha Mbaye bi ma ko dee mm. bi ma dee jàngal loolu mm. ba yegg si ci baat baatu tawféex mm. dafa na ne mu ngi mel ne nga toog ak kilifa goo xam ne jox na la ndigal na la demal wool ma kële di dem ki la woon ginnaaw di dem moom muuma la du dégg mooy même bu doon dégg sax sañoo ko joor ndax sa kilifa moo la ko woolu li ngay mën a def rek mooy daw ba dab ko mm-hmm. léegi nag bi ngay jóg ci jotaay bi pour wooyu ko far mu tombeek moom mu geestu mm-hmm. nga kobos ko na ko nii mooy ñëwal loolu mooy tawféex léegi nag wërsëg noonu la mel boo fekkee ne nit ki ubbeeku na ci wërsëg lépp lu mu jog di ko wuti ak lu mu mën di doon rek ci àddina loolu dafay mel ni loolu day jog dajeeg moom. Hmm. mais li ma jaaxal dañ ne ku yàlla bind am nga wërsëg. voilà bindaale ak wërsëg. waaye léegi lan moo waral kon ñii am. Hmm. ñii amuñu wala ñuy foog ñu jaar fii pour am. xam nga waxul ku yàlla bind bindaale na la ak xaalis wërsëg la wax. waaw moo tax nit ki lu mu ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk. bu ñuy wetti dara fële mu di ko tibb di lekk sax dina ko lekk dégg nga lu mu mm. ñàkk-ñàkk dina am lu mu fu mu fu mu tëdd mm-hmm. xëy na lu mu ñàkk-ñàkk ñàkk mu mu sol bu mu sol sol wërsëg mooy li nga lekk mu rees li nga tëdd fi nga yu mel noonu fi nga dëkk wërsëg daal dafa dafa gën a yaatu léegi nag wërsëg nit ki effectivement dafa am étape yi ko yàlla di bindee mm-hmm. bu demee ba nga xam ne nag tey am na biir bu muy am ci biirum ndeyam foofu la yàlla di yebal Seydina Jibril mu wal ci moom lu ñu tuddee ar ruux mm-hmm. wane doomu aadama bi léegi mat na mu wal ci moom ruux mm-hmm. foofu nag la yàlla di bindee itam ñaata at lay dund ak wërsëgam naka lay toll ala kulli xaal naka la wërsëgam di toll mm-hmm. ndax kuy am ku kuy yaatu wërsëg la wala wërsëgam dafay dafay xat wërsëg day xat wërsëg day yaatu mooy wërsëg day tuuti waaye wërsëg day day day rëy léegi nag foofu tekkiwul na bu yàlla bindee foofu sa wërsëg tuuti boo ñëwee ci àddina faw sa wërsëg day tuuti ba faw déedéet mm-hmm. loolu boo amoon yàlla du wax ne euh, saraxe ci boppam day guddal fan waaye day yokk wërsëg te wax naa la ne ci biiru ndey bi ci lañ bindee ñaata fan lay dund ñaata ñaata at ndax fukki at lay dund wala téeméeri at te pourtant mën nay def sarax sarax yuy tax maanaam buñ ko bu naroon dund soixante quinze ans fukki at ak juróom mën naa def sarax yuy tax moom mu dund ba am téeméeri at ñu yokkal ko ko mm-hmm. Mm-hmm. noonu mu mën a amee ci yokkal ko dundam noonu itam la mën a amee ci wàllu côté ñaan yàlla moo xam sarax la moo xam xalwatu buñ koy duggal la moo xam te loolu am nañ ci sax ay mbir yu doy waar yoo xam ne ci wàllu guddalu fan lay doon mm-hmm. dafa am lu ñuy lu ñuy bind loo xam dañ koy boole koraay yi ñuy jox xar yi koraay yi donc am ak sibirit muy jógee ci gileem donc loolu buñ la ko joxee dañuy gasum kan nga tiimale ci sa sa bopp bi ni ci kan mi sotti saafara sa bopp mu wàcc kenn mun laa tee gudd fan boo so bokkoon ci askan woo xam ne dañoo doon askan woo xam dañuy gàtt fan lool it du di nga gudd fan lool sax donc yooyu day am ay secret la yoo xam ne yàlla moo ko baaxee ay nitam nitu yàlla lu ñu tuddee kasfu baaxee leen ku yàlla nag noonu lay joxe nit secret ci nelaw ci ci anam bu nekk léegi nag yooyu nit ñi mag ñi kilifa yooyu dañ ko fiy bàyyi nit ñi di ko di ko doon nante xam-xam noonu rek la mel mhm. léegi nag wërsëg li tax mu ëpp solo euh, alal mooy alal moom dafa néew dafa xat mais wërsëg nag moom dafa yaatu day tax lépp loo soxla fu mu ne ma misaal la ci wërsëg xam nga élection yi ñu jóge ñu baree bari ñoo doon xëccoo nekk njiiti réew bi mhm. loolu ki ci li ci jotale nit ki wërsëg ci la boo ko xam xamoo ne mhm. ndax bu fekkoon xaalis moo ci jotale nit kon ki ko ñàkk du ko ñàkk. kon ba Bassirou eh, président Bassirou Diomaye fay bii dee du nekk président moom. Mm-hmm. ndax ñu ko ëpp alal junne yoon a ngi fi. Mm-hmm. kon ki ko ñàkk sax du fi jógee sax loolu mooy li gën a li gën a yomb. Mm-hmm. waaye nag wërsëg nag dafa dafa dafa am wërsëgam moo ci nekk moo tax mu jot ci donc yooyu pour nit ki kii seetaan mën a gën a comprendre bu baax xam ne. wërsëg dafa gën a yaatu moo tax booy ñaan mhm. da ngay ñaan lu wërsëg mais bul ñaan lu xaalis mais ñaan yàlla mën na may wërsëg nit ki wërsëg may ko xaalis bu baax may ko xaalis xaalis bu baax bu baax déet wërsëg moom fu mu amee xaalis am loolu bul sonn sax mhm. waaw nit ki fu fu mu amee wërsëg am xaalis mais kon luy différence bi ak bayre kon euh, waaw bayre dégg nga nit pour ñu ñaanal ko wërsëg bu ci gën gis nga bayre mm. Euh, nit ki mën na am wërsëg wu yaatu am alal ju bari te du am bayre lu du saf kenn waaw loolu moom du dara bayre moom luy tax nit ñi safoo la rek la xol yi jublu la donc loolu rek la bayre am am na ñoo xam ne bari yi teelul leen am na ñoo xam ne bëgguñu ku leen xam ci aadama ak Hawa moom hmm. na seen mbir di dox ñu nekk ci seen coin ci seen ruq di jaamu seen borom seen liggéey di dox bëgguñ kenn ku leen xam ko xam nga soxlawul bayre hmm. waaye am na koo xam ne li ko ñor mooy fu mu génn nit ñi topp ko fu mu nekk nit ñi di ko woo téléphone fu mu nekk nit ñi di ko gëstu ak di laaj ci lu mu nekk ndax dafa am bayre tellement ba nga xam ne léeg-léeg nga dox sax ba tàbbi ci gaaram place fekk ñi di ko waxtaanee mhm. parce que bayre moo yegg foofu mhm. léegi-léegi nga dem sax foo xam ne jàppoon nga ne xamuñu ko fekk turam yegg na fa fekk xam nañ ko di ko waxtaan wala léegi sëriñ bi ki am bayre mhm. am wërsëg wala mu am xaalis kooku nag moom est warul ci mbiram daa mel ni da maa dégg kon foofu laa ji moon damaa demoon ba bëgg wax nag kooku nag moom bu amul kaaraange mën mën naa gàtt fan faf nga faaf nga ubbee loolu mhm. gis nga kii am ñaar yooyu kii am wërsëg te am bayre cat da koy yomba sonal kooku cat moo koy yomba sonal ndax gàtt-gàtt mhm. suba ba ngoon ay milliers millier milliers doomu aadama ñu ngi dañuy nekk ci moom nekk ci deram ñi di wax ci moom safaan ñii di wax ci moom lu baax léegi nag kooku bokk léegi nag su dina ñu laaj waaw lu tax kon nit koo xam ne xëy na moo jiite réew mi yëpp nit ñi xanaa kon kooku moom cat dina ko alak loolu mm. bokkul kooku dafa am lu sunu borom di doxale digganteem ak moom ndax yàlla mi ko jiital foofu dina am lu mu lu mu lu mu doxale loo xam ne du ko doxale keneen ki nga xam ne amul responsabilité bu toll noonu mm. mbiru borom bi la mm. maanaam bu ma ko wax borom bi dina def intervention ci moom ci anam boo xam ne ndax yàlla mi ko yan loolu lu toll noonu lu ñëpp di xëccoo yan ko loo xam ne ku ko ëpp judda nga fa donte ñëpp rafet juddu ku ko ëpp xam-xam nga fa ku ko ëpp wilaya ci sunu borom a nga fa ndax ku jiite ku ne rek jiite nga ku la ëppale yooyu yëpp waaye yàlla la soob nag mu jox la loola waaye du càgge ne yow yaa gën nit ñi yaa leen raw yaa leen ëpp cër ci borom bi yooyu yëpp tekkiwu ko mm-hmm. lu dul yonent yi yonent ku ci yàlla jiital ci yu mel ne axtaab yeeg mhm. xawsi yeeg mhm. asxaabul waxti yeeg eh, awliya u kumal yeeg siddiqiin yeeg suhadaaw yi donc yooyu moom loolu leneen la waaye daal li am solo mooy nit ki moom bu fekkee ne am na ubbeeku ci boppam muy wërsëg ba noppi am bayre ba noppi mooy turam yegg fu ne kooku li mu war a gën a yittewoo nag mooy toujours muy liggéey ci lu koy aar muy wàllu kaaraange mhm. te mu bañ ko sàggane seen saa subaak ngoon mu nekk ca ndax bu dul loolu ay nattu dina ko dal yoo xam ne dina mën na la ko bañ a wax nag mën nga ko romb it di ko ñee ci ay këram ci ay compte bancaire ci voyage dem ak ñëw waaye intérieurement dundul ci biiram gis borom barke yooyu ci biiram dundul ndax lu tax mm-hmm. dundul mm-hmm. am na lu muy wéyaale loo xam ne bu la ko waxoon mm-hmm. maanaam ñàkkoon loolu mu am lépp te dellu ci féex moo ko koy gënal mais man sëriñ bi li nga wax ni sax laay rebondir mooy boo jëlee quatre-vingt pour cent ci borom barke yi mhm. ku ci ne mu ngi weyaale lu mu wax mhm. muy benn ci mhm. jàngoro wala ci njaboot gi surtout doom joo xam ni mel na melow wala mu mel melow jikko maanaam dina am benn stress bu ñuy dund ci seen parti ci seen yaram wala ci soxna wala ci doom wala ci benn membre de la famille parce que wërsëg noonu la ko yàlla bindee il faut moom lu la. mooy li ma doon wax rek ci wàllu kaaraange yi. Mm-hmm. ñu bari xam nga du ñu aar seen bopp ci wàllu woowu. te defe naa ci ñi ma yàgg seetaan yàgg mm-hmm. naa ko wax ba tàyyi nee naa yàlla garanti ci ñaar la ko ci kenn la ko jël muy yonent yi. yonent yi rek yàlla moo leen yónni muy muy ay ndawam. waaw ñooñu moom yàlla moo tax yonent yi maxsoom lañ maxsoom. Mm-hmm. mooy yàlla moo jël garanti ci ñoom ba dara du leen lor. parce que yàllaa bëgg saa yu ñu xëyee seen mission ñu mën koo def nañ ko war a defee te dara du leen gàllankoor. Mm-hmm. kon yàlla moo leen di aar di leen protéger ba baa ñu koy wëyu jee mm-hmm. ku dul kooku nag yaay def effort lu lay aar yow. te loolu gis nga lu ci nekk rek yàlla da ca joxe misaal. Mm-hmm. bu dee ci wér dig yaram gis nga ti yàlla ayub. fi fi mu yeggoon ci wér dig yaram dem na dem a dem ba yegg ci wax nañ ni euh, baal ma ci baat bi xaw naa xaw naa. xaw naa yegg ci ci yàqu yaram bi. Mhm. ba dañ ko mujj baatu nëpp waa baat boobu mhm. laa laa soxla woon. ñu ñu ñu ñu ñu watat ko yóbbu ko sànni ko ci sën ba bàyyi ko fa. Mhm. seetal loolu nga xam ne euh, foo xool sax yi ngay gis ci kawam ñi ñuy dund ci moom. nga xam ne benn sax mos naa doxee ci karaw ba ba ci tànk bi daanu muy jooy. ko Jibril laajee dana ko li mu jaar fii ba yegg si te gisut fu mu ramam nekk di lekk loolu laa ko yërëmee. allahu nga xam ne kon ñoom seen dëgg rek muñ moo tax awaab la yonent yàlla ayub sabuur la it mm. ku mën a muñ la yooyu yàlla da ciy joxe ak sakariyaa mi nga xam ne nag dañ koo dàq mu dugg ci ci eh, garab ci ak garab mm-hmm. seytaane téye lafu mbub mi ba gaa yi ñëw mu leen fii la dugg ñu si ko nga xam ne bu ñu koy si ba yegg ci bopp bi dañoo xàjjale jëmm ji nii te taxul moom mu kii yooyu yëpp kon yàlla da ciy joxe misaal dégg nag yeneen yi ci des yi ay ay exception rek la ñeneen ñi ci des nëpp yàlla moo leen aar am na ñu ñu ci rey fekk leen ci mm. minbar bi ku mel ni kii mm. fekk ko ci minbar bi muy xutba ñu dagg bopp yu mel noonu yooyu yëpp day am léegi sëñ bi xam lu mm-hmm, mm-hmm. lu tax sunguf gën a gaaw ci bayra ak mm. université sunguf ah. garab am la ah, loolu man gisuma loolu de mais sëñ bi pël yi seen sunguf gaaw na ci mm-hmm. wërsëg ak ak ubbeeku de ak bayre gisuma loolu de maanaam uh, ubbeeku moom gëw ma ah, am na ñu koy wax nag waaye gëw moo ne moo gën a baax alxuraan ndax lu mu ci mën di doon xam naa ko te jëfandikoo naa ko waaw mm-hmm. ah, xëy na nag kenn ku ci nekk ak mm. loolu it moo mat a bàyyi xel kenn ku ci nekk ak fi sa fi sa <laughs> sa gëm-gëm toll déedéet bëggumaa wax loolu sax li ma bëgg wax mooy mm-hmm. kenn ku ci nekk ak sa sa sa euh, sa rawxaaniyatu ndax dafa laal nuuraaniya wala sulmaaniya loolu moo mat a bàyyi xel Mm. ki nga xam ne mbiram nuuraan wi la mbiram leer la leer la kooku nay jëfandikoo alxuraan moo ko gën a gaaw ubbi junne yoon que buy jëfandikoo sunguf ki nga xam ne mbirum sulmaali yu nag muy jëfandikoo sunguf moo gën léegi nag yooyu boo ko xàmmewul da ngay da ngay indi loolu ku xamul ilmul nujum ah, mënuloo seet mënuloo ko xam mooy li ngay wax rek mm-hmm. balaa maa tëj mooy saa su ne kon mm-hmm. buntub seet seet mm. dafay taxaw saa su ne nekk lu capital nekk lu essentiel loo xam ne mm-hmm. nit ki kon gars yi mm-hmm. tey moom xaabaabal nañu mm-hmm. waaye waxtaan wee ko laajo ndax boo toogee boroom xam-xam da ngay profité di ko indi laaju ñiy seetaan ndax dafay encouragé kii seetaan xam ne man kat sëñ Fallou Dramé mi kat mooy sama docteur ci samay aajo sëriñ bi lu muy tàggu waaw li ñuy tàggoo di buur xanaa mooy rek li ñuy ubbee woon mooy li nga xam ne daal sunu yitte la lool nag ñi koy ñaan itam sunu kem kàttan mhm. mu yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci biti réew muy jaaxle ak lu mën di sabab seen jaaxle ñoo ngi ñaan <coughs> mu teggil leen ko di leen sant bu di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa kon gaay ñu ngi leen di jox rek euh, dig daje euh, ba àllarba bii di ñëw ñeen nga xam ni euh, juufeen yeeg nduure yi amagul xar ah ñu ngi leen koy ñaanal yàlla yombaleen ah, yombal leen ko ak ku ci nekk fa nga ko yaakaaree ak ci ki nga ko yaakaar yàll na la yàlla jàppale dimbali la ba mu yomb ci yow di leen jox dig daje rek ba noonu ñun ak yéen bu soobee yàlla ñëri lañ ko toppante di jataay wala tribune xam-xam boo xam ni buur def ci faral di ànd ak euh, borom xam-xam bu mag bi di jàngalekat Serigne Fall Dramé euh, bokk ci famille bu baax wax dëgg yàlla macha allah waaye loolu teewul euh, ku nangoo sonn ci ittee jaamu yàlla yi la mooy ay guddeem mooy ay bëccëgam fu mu yendu xam-xam moo ko fa yendu fu mu yendu yittey doomu aadama yi ñoo ko fa yendu kon gaa ñu leen jox dig daje